حسيب ولك الإعلان خلق عظيم يقول لسان لذلك قديم ما أما كان الأقدار بلا يسارخي يقيني إلى الجنة باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحي ملكت بالرب المخجل الموجود اليمين بمتي لشيء أنسى أزال فلك كالخم مرامي وحاجاتي لربي تواجها بحمد وشكر وولي كان بي سمي مراد هدي يا كوني عبد ربي قديم من أخاتمه بالذكر والعرب سازم مزاياك يا كل لدى الكل قد جلت مزاياك ياك ياك متاياك يا كل لدى الكل خجلت ولكن خجلت على التاريخ مقامات غير الخلق مقامات غير الخلق مبلومي ana soppay Seydina Muhammad ku sopp Seydina Muhammad ku sopp Seydina Muhammad maqaam maatu xayrul xalq maqaamaatu maqaamaatu xayrul xalq maqaamaatu xayrul xalq ku sopp Seydina Muhammad ku sopp Seydina Muhammad maqaar maatu xayrul xalqi al xayru rabbim mu xayaa batul fal taqra al suuratu najmi Muhammad al muxtaaru yaa xalqa yàlla dootul bindu ku mel ni Seydina Muhammad Muhammad al muxtaaru laa xalqa لا خلق لا خلق لا خلق مثل عليه السلام من لخول أمرك اللغم محمد المعروف ماخ ومانخ وبعث مخصوص مسؤول عن الوسم مجيب مجاب مرتدى ملك الهدى مبيخ ومبعوث إلى العرب والعجم مديء جلاءنا دجنا معلل من يخل مخصوم من النات والوهم مدينة العلم المرتجى الملة لنا يلا الفرم مئة لنا يلا الفرم مئة لنا دليل منجن من سنوبي ومن سلمي ما لا وني بالنبي كل فاسد وسرته bi abdan qadiman bila xami min alaayi rabbil arsi abqi salaatu bi taslimi lil mustara muqtilal lemi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun jàmm wa salaamun xéewal wa salaamun mucc ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamina Cheikh Mamadou Fadilou Cheikh Cheikh muhammadul fadil mooy fal di fale bàyyi alaaji baara ku ko sopp defal nii say baaraam tey ku ko neex mu fal la ngay fala satu mbàkke bu soobe ngam na baar ba machine ba joonu soobu leen jëm gaar ba mbooloo ku bëgg sëriñ fallu fatte aada guddeeg ba cog jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant si di fallilu guddeeg bëccëg nuy sant Sidi Fallilu saalika fallaaw yoxti mel yasaa yàlla ko fal nee leen ko sëriñ Fallu Mbàkke ak sa alaaji Fallilu du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku mu may la nga géejal bayu alaaji Baara Mbàkke xanii la sëriñ Xaadim Mbàkke yal na fan wi yokku ñun ñoo ñaan fanam mi soxnu ful ko yàlla na dunda téeméeri at yu topp nu yàgg ci gronam bu kenn nopp amina amina ne leen amina ci darajay muhammadul amin jërë ngeen jëf dañ leen doon ubbi rek yal na yàlla dafa leen dam ci jotaay bi jërë ngeen jëf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 yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di nuyoo nuyoob lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi waaye nag di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne mooy suñu kilifa muy sëriñ Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Amin waaye tamit noon lañuy jaar tamit di nuyu tamit kilifa ak bi muy Serigne Cheikh Ndindi ak mboolem li nga xam ne ñoo la fi nekkal ginnaaw bi loolu jàllee ñu am mbégte ci ànd ak yéen ci jataay bu tedd bi tey nag li ñu tax a jóg mooy li nga xam ne moom la ahfaadu Cheikh Mouhamadou Bara yi di woote tey fii ci bërëb bu sell bii di Alieu ngir lan delloo njukkal seen maam Cheikh Mouhamadou Lamine ñu fas yéene ànd ak yéen nag ci programme bi ni muy tëddee ñu wax ne incha allahu taala dinañ ko tàmbalee ci ubbee ci ci alquraanul karim ki ñu koy defal nag mooy seriñ Abdou Fatah Mbakke ibnu sëriñ Galas Khady mu nekk ci sëtub Cheikh Modou Lamine ginnaaw bu jàllee dinañ jox kàddu gi sëriñ Modou Mbakke ibnu sëriñ Moustapha Bara Fadilu su ko defee moom mu dalal gan ñi nga xam ne ñoo fi teew na délégation bi su jàllee tamit ñu jox sëriñ Serigne naa Bousso mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko te mi ngi yu mel nii mu waxtaan ñun ci waxtaanu melokaan wala qualité yi nga xam ne moom la ko aju ci Serigne Touba war a yor ginnaaw bu jàllee tamit dinañ jàll image boo xam ne day wane Cheikh Mouhamadou Lamine ginnaaw buñ ci jógee tamit ñu jox ñi nga xam ne ñooy délégation bi te ki nga xam ne moom moo ci waxtaan ci moom mi ngi tudd sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan moom moo ci wax su jàllee nag dinañ jox bàyyi sëriñ moom mu wax ci euh, sëti sëriñ Baara yi bu noppee nag ñu jox sëriñ Galas Kaltoom moo daal di wax ginnaaw ba nag sëriñ bi daal di ñaan kon xam naa rek njëkkalanteeg waxtu wi ndax li waykat boo xoon daan ne al waxtu ka tax in lam taqtahu yaqtaka kon nañ gaaw njëkkalanteeg moom su ko defee ñu jox sëriñ Fata mu ubbee alxuraan karim kon sëriñ Fata bismillah tafadal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 حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم dhalika xayru wa axsanu taawila wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'aad wal basara wal fu'aada kulla ulaa'ika kaana anhu mas'uula ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها صدق الله العظيم shukran jërëjëf sëriñ Abdou Fatah njàng mi am na solo lool ab soññ la bu bu mag boo xam ne war nañoo soññ ndaw ñi ñu gën a jàng alquranu karim ndax njàng fi njàng mu am solo waaye tamit rawatina aayaat yi nga xam ne moom nga fi jàng du ko fàttali moom nag mi ngi doon jànge ci fii ñuy wax afiya mu nekk daara joo xam ne daara ju am solo la kon damay wax ne rek kon ñëpp war nañoo gën a góorgóorlu ci njàng kon xam naa ni ñu def mooy dañuy jox sëriñ Modou mu sëriñ Moustapha mu ñëw jël kàddoom daal di dalal gan ñi nga xam ne ñoo fi teew kon sëriñ Modou bismillah min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahim maliki yawm ddin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain ihdina siraat almustaqim siraat allazina alhamta alayhim xayri almaadubi alayhim wala ddallin amin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk jullit yi rawatina mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu tey jiital ci nooyo bi saaxib alfadila alseex sidi al muxtaar xalifatul am li taaifatul muridiya di wàcc di nuyoo sëriñ abul baraka moom xam ne moo yor kër cheikh muhammadul faadal di wàcc suñu jëwriñ suñu sëriñ cheikh muhammadul mustafa ibnu cheikh muhammadul amin ibnu cheikh muhammadul faadal di jël nuyoo bu sell nuyoo bu tedd jëmee ko ci cheikh muhammadul mustafa rawatina ci jawrinam sëriñ Cheikh Ndindi Mbakke ak ki mu toftal ci moom sëriñ Fallou Galas Kaltoum mais xam ne moom la sëriñ Cheikh di jox liggéey bi mu yoru màggal gi ñu ngi dalal ñi nga xam ne ñoo jóge suñu kër maam sëriñ Mahmoudan ñu gën kaa miin sëriñ Dan Xarilo te ka nekk ca bopp ba di sëriñ Xaadim Mbakke di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di leen jottali nuyoo ba jóge ci cheikh mouhamadin moustapha ak i cant ak i ñaan di yëg ne di wax ne lii ngeen def rëy na ci ñun lool ñun seet cheikh mouhamadul Lamine Baara Mbakke ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen wax ne seen kër ngeen ñëw ndax ñaari ñooñu cheikh mouhamad dan xariloo ak cheikh mouhamadul amin dañ doon jënn jëmm nekk ñoo woon ñaari nit ñoom ñaar ñu amoon ay alaaq yu am solo seen diggante rafetoon lool ba cheikh Mouhamad Mahmoudan njëkk a fekk cheikh na Ahmadul Xadim dëkkaale jeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak waajur mu tedd wa cheikh Mouhamadul mustafa cheikh Mouhamadul Lamine tamit nekk fi sàmm lool lool ci njaboot gi moom tamit mu nekk fi ba nekk nekkal fi cheikh Mouhamadul Fadal nekkal fi cheikhul Xadim di sët bi njëkk a wuutu cheikhul loolu kuñ ne mooy samaam rek am ngaw sas ñu ngi leen di dalal di leen wax ne ñëw ngeen seen kër di leen ñaanal nag ci barkeb borom bis bi ñuy dëgmal muy Cheikh Mouhamadou lemin suñ borom fay leen ak mbokk fay leen ak yiw ndax lii ngeen def rëy na ci ñun lool Serigne Moustapha sant na lool ba sant fu mu mën a yem ci ndigalu ñi nga xam ne ñun ñoo bokk suñu maam Cheikh Mouhamadou amin te buñ ci jukkee Serigne bàyyi Serigne Ndiaye ak Serigne Modou moom soxna jotu ak sëriñ Abdul Qadir moom Cheikh Amadou Moustapha ak sëriñ Moustapha Seck sama mag sax laa waroon njëkkee Cheikh Abdul Baaxi mi nga xam ne mooy suñu mag lu suñu xalifa ñu ngi leen di nuyu di leen tatagal di leen dalal di leen wax ne seen kër ngeen ñëw di sant nañ bu baax nag di leen ñaanal Sëriñ tubaa li nga xam ne ñu ngi koy leblante mu nekk la xamante ni lu lu am solo lay doon ba keroog bu ñu dajeeg suñu maam Xaadimul Moustapha du ñu am kersa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. jërëjëf sëriñ Modou kàddu yi tënk na te nekk na lu jublu rafet ndax gan moom soo ko amee danga ko war a teral ndax yonent bi alayhi salaam moo waxoon daane man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyukrim dayfa kon ñu ngi leen di kon ba tey ni ko suñu Modou waxee rek marhaban bikum kon xam naa dañuy jàll ci li nga xam ne nag moo gën a yitteel jataay bi mu jëm ci wàllu waxtaan wi waxtaan wi nag tom bi ñu fa yéene waxtaanee mooy melokaan yi nga xam ne moom la ku bokk Serigne Touba war a yore yaakaar naa nag lu ñu war a teewlu la ndax jamono toll na foo xam ne dafa laaj ñu delluwaat jël mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk jël seen jikko yi di ko jàngat kon tey buñ tànnee temb mel noonu kon am na solo lool. ki ñu koy defal nag ku ñëpp xam la muy Serigne Cheikhouna Bousso leen yaakaar naa du aajo ñu koy xamle ndax ni ma ko koy sànq rek jotaay yu mel nii xaw na koo miin kon nu ñu def rek nañ ñaan yàlla mu boole ñu min allasina xaw la fa yatabiuna ahsanahu kon Serigne naa bismillah tafadal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 wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi bokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw nuyóob lislaam bu sell boobu nga xam ne ñu ngi ko jëme ci bokki jullit yépp ñu ngi leen di ndokkeel ci jataay bu tedd bu am solo bii di ñaanal sunu kilifa gi nga xam ne moom la sunu boroom teg ci boppu njabootuk Cheikh Ahmadou Bamba di sëriñ Sidi El Muxtaar sunu boroom may ko ak wér te yàggal ko fi ba li mébét yéene ko ci liggéeyub Serigne Touba bi mu àggale ko fa kawe njortam waaye di siyaare ci munaasaba bi ñu nekk sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu ak Cheikh Mahamadul Fadil di ko ñaanal moom it sunu boroom dolli ak wéram te gën ko fee yàggal. ba mu àggale ay mébétam naka noonu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa barab bi ñu nekk moom it wuutu fi Cheikh Mouhamadul Amin Baara ñu ngi koy ñaanal di ko siyaare ci bis bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal muy bisub Cheikh Mouhamadul Amin Baara noonu la ñuy siyaaree njaboot gépp waaye nag ci kilifteefu sëriñ seex ndind mii nga xam ne mooy kilif ak jataay bi di jëwri ni seex Mahamadul Moustapha ak doomi boppam yi nga xam ne ñoo taxawal jataay bii di ahfaadu seex Mouhamadul Amin Baara di siyaarit sunu mbokk yi nga xam ne ñoom lañu ñu tudde bis bi di waa kër sëriñ mu Mahmoudan Mbakke ñu gën koo miin ci sëriñ Dan Xariloo ñu ngi siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp di sant bu baax sunu borom ci fekke gu fekkee jataay bu am solo bii nga xam ne yaakaar nañ ci lool yërmande yàlla akum njéggalam ni ko sëriñ Baara junje woon léegi waxtaan wi tomb la bu am solo boo xam ne dañ ci tënk dara rekk ngir xataayu waxtu yi muy melokaan yi nga xam ne képp ko bokk ci Cheikhul Xadim radiallahu anhu moom nga war a mel loolu nag jàpp naa ni lu jamono soxla la jamono ji ñu toll lënt am na ci nan lañuy ñuy mën a ràññee ba xam ki bokk ci sëriñ bi ak ki ci bokkut bu ñu nee bokk ci sëriñ bi nag bu xel daj rekk ku bokk ak moom ci wàllu nasab li ñuy wax askan waaye bokk giñ jublu mooy ku bokk ak moom ci wàllu ruux ci wàllu aqida noonu mu xamle ni nit kat dafay jaboot ñaari doom yu bokkut da leen di jaboote li ñu tudde waladul qalb ak waladul sulb bu dee ci sun jataay bii nag ñu ngi jublu waladul qalb mooy ñi bokk ci sëriñ bi ci wàllu pas-pas ci wàllu iraada doon murit boo xam ne li sëriñ Tuubaa yitte woowoon ci nit ñi tam nekkoon muhimma bi ko fi bàyyi woon buñ ko seetee ci jëmmam gis ko ci buñ ko seetee ci ay waxam gis ko ci buñ ko seetee ci ay jëfam gis ko ci loolu lu am solo la loolu nag dañuy dañuy yóbbu kon ci ñu xam li ñuy tuddee madrasatu sayxil xadim école bi nga xam ne ci la sëriñ bi doon jàngalee ñu xam sëriñ bi yan matière la doon jàngale bañ mën a xam ki fa génne ne kat yooyu la war a dégg bu ko déggul duñ mën a gëm na ci sëriñ bi la jànge loolu it dañuy yóbbu ci ñu delluwaat tuuti ci ginnaaw wane ne rek sunu borom subhanahu wa taala buñ fàtte ni diirub ba mu bindee sunu maam aadama ba fii ñu tollu lam waxoon mooy doomu aadama bu jortu ne dama ko bind rek ngir ak neen sunu borom bindul mbindeef yi ngir ak neen bindul asamaan ak suuf ngir am po lenn lu ci nekk wax na ko ci alxuraan bi mu bindee sunu maam aadam ba fii ñu tollu mësu koo neenal mësta neenal doomu aadama jamono bu nekk dafay yabal ay yonent yoo xam ne dañuy indi risaala indi sharia boo xam ne ci lay tënk doomu aadama yi ñu war a dunde noonu ci kaw suuf tàmbule ci yonent yàlla nuux ak mbooleem ñi dox ci diggante bi ba agsi ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom yamale ci moom li ñuy tuddee an nubuwa war risala nga xam ne ci moom la ko sunu borom yamale yonent yàlla muhammad ku ne xam na ni bi mu fi jógee ak léegi junniy at ak nangami téeméer ak lu topp la boobu fatra nag bi sunu boroom tàmbalee yónni ay yonentam ba ni mu agsee ci yonent yàlla muhammad amul benn diggante boo xam ne toog nañ lu toll noonu te ab yonente wàccut te diggante bi ñu toog te ab yonent du wàcc ñi nga xam ne jamonoonte wuñ akub yonent sunu boroom la mu doon jëflante ak ñoom mooy wa ma kunna muadibina xatta nabasa rasulan koo xam ne dafa dund ba jóge fi jamonoonte wutakub yonent kooku sunu borom du ko àtte ci di ko buggal bi mu demee ba tëj risaala gi ci yonent yàlla muhammad nga xam ne mooy xaatimul anbiyaai wal mursalin sunu boroom dafa wax ci hadisul xudsi yu ne ginnaaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam bépp bopp téeméeri at sunu borom dana yebal koo xam ne dafay dikk ngir yeesal diine ci xeli nit ñi yeesal ko ci seen pas-pas moom la ñu tudde mu jaddit loolu nag moo ñuy dugal ci sunu boroom dafa def xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gën ci mbooleem xeet xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas waaye xayre ya boobu ko sunu borom defal muy ngëneel loolu mu ko defal ci kaw xeet yi ci des mi ngi ko ko jox ci kaw taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar ci kaw ñuy digle lu baax ak li tere lu bon waaye suñu demee ba digleetuñ lu baax tereetuñ lu bon ngëneel li mu amoon ci xeet wi dafay manqué ndax la sababoon mu gën ci xeet yi dafay des ci loolu la mu jaddi dikke koo xam ne day yeesal diine ci xeli nit ñi bari nañu ko doon ci boroom xam-xam yi soxlawul ñu di ci jaar waaye ñu ñëw nag ci cheikhul xadim radiallahu anhu moom ci jamonoom dafa nekk mujaddid lil umma wala mujaddid li diin dafa doon yeesal diine waaye ci biir tajdid bi dafa nekkoon muslix nga xam ne yàqu-yàqu yi mu fekk ci nit ñi da koy defar ba ñu melaat nañ war a mel kooku nag bu ñu jëlee ñaari baat yooyu yi nga xam ne moo ëmb ab liggéeyam ci lañuy ñuy mën a xame dëgg-dëgg ku bokk ci moom nan la war a mel ndax nit bu fekkee dafa yàqu bu fekkee dafa manqué diine nit ku baax wàcc ne yitteem jëpp mooy fexe ba mu amaat diine yitteem jëpp fexe ba mu defaruwaat kooka suñ gisee mu am diine defaru dañuy jàpp ne liggéeyub ku baax kookee sotti ko na ci kawam waaye bu ñu gisee mu manki diine nag te defaruwut duñ mën a jàpp ne liggéeyub ku baax kookee sotti ko na ci kawam te mbooleem ku mas a yàlla ku yàlla mas a yónni ñett yi rek moo doonoon yitteem fexe ba nit ñi nekk nit ku nekk nekk saalix digganteem ak boroomam waaye nekk saalix digganteem ak doomu aadama yi waaye nekk saalix digganteem ak boppam loolu moo doonoon muhimmatul mbooleem mursaluna yi sëriñ bi nag bi mu dikkee ngir yeesal diine ci xeli nit ñi dafa ñëw ci jamono boo xam ne dafa fekk xeet wi wi mu fi fekk am lu ñu soxla soxla su tar ba mënuñu koo ñàkk loola la ca jiitu mooy li ñuy tuddee tawxiid muy lu aju ci wàllu pas-pas dafa fekk xeet wi soxla ko mu fekk leen it ñu soxla soxla su tar li ñuy tuddee ruux tarbiya ruuxiya sëriñ bi daldi sanc ci loolu daldi leeral ne benn yitte la am muy yeesal diine ba nit ñëpp am diine defar nit ñi ba nit ñëpp defaroo boo delloo ca mbindam ma danga fa fekk diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa nu jaddidu diine ju dul islaam deesu ko gërëm fa yàlla lislaam moom yi nga xam ne moom la yàlla gërëm nag moom laa fas yéene yeesal muy benn danga fa fekkit muy wax ne lil mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu sama yéene mooy yeesal sunna yeesalal ko yonente bi sallallahu alayhi wa ci la sañc nag commencé liggéey bi ñuy tuddee ab tarbiya al islaamiya mu tàmbali di yare ndax ku ne xam na ne ci njëlbéenam moom Cheikhul Xadim ab jàngalekat la woon ci daaray waajuram di sëriñ Mamor Anta Sali di jàngale di ko wuutu ci daara ji nekkoon Cheikhu taalim waaye mu jot ndigal nag ci boroomam sunu boroom ne ko wool jaam ñi ñu wéeru si ci yow laqatu si ci yow képp koo xam ne bëgg naa mucc àdduna ak àllaaxira képp koo xam ne bëgg na yiwu àdduna ak àllaaxira nañu wéeru si ci yow sëriñ bi daal di leeral amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa himan wa mafsa fa man araada al xayra fi kiltayi daareeni falyalus bi ci la woote wooteem bu màgg bii nag muy daawa tajdidiya islaahiya woote yeesal diine ci xol yi waaye defar defaraat nit ñi ba seen ruu defaru seeni i jëmm defaru mu daldi di ci former nag ay kàngam yoo xam ne ci loolu la leen forme defar leen ba bi mu noppee ci ñoom kenn ku ci nekk dangaa sanc ci barab di tisaare liggéeyub Sayxul Xadim boobu mu mel ne wooteb sëriñ bi mi ngi mi ngi mi ngi màcc jëm ci li ñuy tudde tasawuf ci la sëriñ bi doon woote waaye toujours nañuy bàyyi xel ne sëriñ bi ab tabaxam daf koo tabax teg ko ci fondement boo xam ne mi ngi ko tuddee imaan islaam ihsaan nga xam ne tasawuf mooy la ci mujj gëm yàlla gu dëgër moom la jiital ci léppam teg ci sharia islaamiya bu sell bu dara koo jut dog cee teg tasawuf bu sell boo xam ne fu mu fekk jëf dana ko taaral dana ko dolli valeur loolu boo demee ci mbindam danga fekk muy wax ne nga xam ne foofu dafa jëfandikoo baatu al abdu rek la jëfandikoo muy jaamu bi yàlla bu mu mën a doon na yëg ne liy dëgg ci moom na tàmbalee mbiram ci tawxiid wal xaqu badul abdi bi tawxiid yi mu ne jaamu bi yàlla bu mu mën a doon na tàmbalee mbiram ci tawxiid te muy wéetal yàlla li ñuy wan ne baatub al abdu bi mu jëfandikoo foofu mën nañ koo dégg ni mu ngi ci jublu murit bu mu mën a doon dañuy fekk ci beneen barab mu di ñu tafsiral loolu di wax ne awwalu waajibin ala al muridi murit bu ne te murit sëriñ Abdul Ahad bi mu ñu koy leeral dafa wane ni suñ dee wax murit mooy ki jàpp sëriñ bi ndax koo xam ne ba nga ko jàppagul deesu la ko wooyee bi nga ko jàppee lañ la koy wooyee te soo ko bàyyee deesutu la ko wooyee kon bu ñu la koy wooyee moo tax kon bu ñu nee murit muy ki ñëw ne dafa jàpp sëriñ bi na yëg ne sëriñ bi moom li mu ko digal ne mooy li njëkk a war mooy taxsilu zaadihi min at-tawhid na am ab yóbbal bu dooy sëkk ci tawhid te mooy xam ni muy wéetale yàlla xam aq yàlla xam fa war a teg yàlla taxsilu zaadihi min at-tawhid doog caa teg nag fiq doog caa teg tasawuf ci beneen barab day wax ne koo xam ne dafa def jéegoom bu njëkk muy imaan jéegoom ñaareelam muy islaam jéegoom ñetteelam muy tasawuf nee na kooku dana mucc kon melo wiñ war a njëkk a seetlu ci ki jàpp ne moom bokk na ci Serigne Touba mooy na njëkk a jeex ci moom tawxiid mooy wéetal yàlla gu mat sëkk su manqué rek même bu fekkee jàpp na ci dañuy yëg ne moom déggul sëriñ bi xamul am njàngaleem wala bu ko déggee wala mu xam am njàngaleem respecté wu ko ndax ñàkk a jëfe ndigalam du tax nun ñu jàpp ne kooku du ab murit mu ngi mel ne rek jullit bi nga xam ne dafay jàdd léeg-léeg ndigali lislaam yi kooku ahlu sunna wal jamaa duñ ko jàppee ab yéefar waaye dañ ko jàppee ku mooy yàlla naka noonu it murit bi li ko sëriñ bi digal ak ñàkkam koo def du tax ñu jàppee ko ku dul ab murit waaye danañ ko jàppe nag ku tegul sëriñ bi fa mu ko war a teg wala ku ko respecté wu kon loolu mooy li jiitu ci li ab murid war a am wal fiqhi wa tasawufil mujidi bu ci tegee sariya islaamiya muy jaamu yàlla gu sell gu dara koo jut sëriñ bi ci taw tawxiidam ci taw tawxiidam digganteem ak boroomam dañuy gis barab yoo xam ne lam cay leeral am na foofu day wax ne képp ku jug di jaamu lenn lu dul yàlla ci kaw suuf bis dana ñëw nga xam ne yàlla rekk matoon a jaamu man abada gayra allahi waaye képp kuy jaamu yàlla it te dëppalewu kook sunna bis dana ñëw mu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom la sunu boroom yabaloon ci ñun ngir mu jàngal ñu naka lañ ko war a jaamoo wa man abada allaha bi gayri sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa sa yaalamu anna muhammadan rasulullah loolu tawhid ju sell la waaye gis nañ ba tey it muy delloo boppam ci yàlla di wane ni mu ko wéetale ak ni mu ko kennale nga xam ne dafa àgg ci li ñuy tuddee imaanu charan day giñ ci ngiñul charia di wax ne billahi alladi laa ilaha illa huwa xayaati wa xarakaati wa sakanaati wa mamaati maa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kooku delloo na lépp yàlla waaye lépp mu ànd kook yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn risaala boo xam ne moom moo ko bind moom sëriñ bi nga xam ne nusxa bi mi ngi tisaaroo sax mu ciy leeral mbiram di wax moom mooy kan ba mu waxee ba noppi dafa wax ne koo xam ne kii laa kat yàlla rekk mooy sama boroom am benn buur bu may jaamu bu dul moom yonent yàlla muhammad mooy sama ndaw alquran mooy sama njub lislaam mooy sama dalil mooy ki may gindi alkaabatul musharrafa mooy sama xibla yooyu di yu nuru yu woyof te du lu woyof ndax njàngale moom yi mu doon jàngale suñ ci delloo gis moom dimension bi mu amoon ci digganteem ak boroomam ni mu jaxasoog boroomam ba àgg ci di ci wax wax yoo xam ne sax am na ci boroom xam-xam yi ñu mënta dugg ci seen bopp damma xayaati li xayaatillaahi sama dund dafa jaxasoog dunduk yàlla téewul jamono bu nekk ñu di ko gis muy kër kër yi ak di sonn ci digganteem ak boroomam buñ doon jàngat loolu di ko ci jéem a roy lam waxoon ca jolof te waxoon ko mag ñi su boobaa sunu borom danañu ci musal te mooy yàq ab deram te ba ko mag ñi laaje dafa wax ne mooy bàyyi koo fi man maanaam wane ne ci moom nga bokk ba noppi ngay wax wala ngay def loo xam ne ku ku bëgg ku bëgg a wax lu ñaaw ci moom man koo jaaree ci yow loolu lu mat a wattandiku la te moom doon na ko wattandiku lu la ñuy dimbali ci wattandiku gi nag moo ñu dellu siwaat jëmmam moom ci jëmmi boppam wane lim doonoon kon moom mu'min la woon muy jullit bu dëggu waaye muslim la woon ginnaaw bi mu gëmee yàlla ngëm gu mat sëkk dafa wommatu ci ndigali yàlla yi boo xoolee digganteem ak boroomam ponki lislaam yiñ xam muy juróom benn bu ci nekk jox na ko ahamiya daj na ci jànkonte na ceeg loo xam ne gisaguñ ci taarixul islaam ku daj lu mel noonu ci ponki lislaam yooyu muy julli ak woor mébét mam amoon ci aj makka nga xam ne ci biir xasida yi fenn fu ci nekk jàmbat na ko fa fenn fu ci nekk jooy na ko fa jooyi xol ngir bëggoon a aj màkka seere ji rasulullahi sallallahu alayhi wa loolu day wane ne moom woyefalu toon dara ci lislaam noonu mu identifié boppam nag ci noonu la doon yar mag ñi def leen ñu nekk ñu gëm yàlla def leen ñu nekk ay jullit waaye def leen ñu nekk ay muhsinuuna yoo xam ne fu ñu mën a nekkit rafetal képp mooy doon seen yitte génn na ci nag ay modèle génn na ci ay modèle yoo xam ne kenn ku nekk yoon wam ko awale bukkut ak wam awale woon sa moroom waaye koo ci dem ci ñoom ngëm yàlla gumat sëkk nga ciy fekk lislaam ju sell waaye ihsaan bu sellit ngay fekk ci moom mag ñoo ñii nag buñ leen mënta nafar di leen delloosiwaat di jàngat seen dund ga moom jëmmi boppam ja waruñoo tàyyeel ci delloosiwaat ko waruñoo tàyyeel ci nafaraat dundam ga waruñoo tàyyeel ci jamono bu nekk it ñuy wane taarub lislaam bi nga xam ne doon na ko wane xam nga bi mbokk yi tànnee tomb bii ne ku bokk ci Serigne Touba nan la war a mel suñ ko tënkoon ci wenn bayit day doy sëkk te waxi boppam lay doon ndax bam ne idil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmaani haysu qasada ñu ne ku bokk ci moom kat wenn melo rekk la war a am te mooy du soxla lu dul ngërëmul yàlla ko bokk ci Sëñ Tuubaa buñ ko tënkoon ba tey ci weneen bayit mu doy sëkk ndax waxi boppam lay doon muy ama taalluqu fa bimtisaali awaamiri rahmaani sil jalaali képp ku aju ci man mooy koo xam ne jaayante nga ak moom jébbal ko sa bopp wommatu ngir fa yéene ànd ak moom nee na na nga yëg ne lay dëggal aju goo gii nga woote mooy nga tënku ci ndigal yàlla yi bàyyi ay tereem loolu nag bokk yi toll nañ ci jamono boo xam ne li ñuy wax ne wa afdalul ilmi ilmu waqtihi xam-xam bi gën ci xam-xam yi mooy xam-xamu waxtoom lii sëti Cheikh Mouhamed Lamine Baara yi tànn ngir ñu waxtaan ci mooy tomb bi gën a yitteel ci jamono jii ñu nekk ci biir yoonu murit parce que inxiraafaat bi dafa bari coow yi bari cël yi bari comportement yu bees yi bari ba mënatuñoo xam kan mooy dëgg-dëggi murit ci biir loolu attekat yi bari kenn ku nekk am nu mu attee yoonu murit am nu mu attee ne ñii ñooy ay murit ñee duñu ay murit te attekat yooyu yëpp kenn waru ci atte yoon yu bari yooyu yëpp kenn waru ci fent wenn yoon attekat bi kenn la yoon wi wenn la ki ko war a fente mooy sëriñ bi ki war a atte mooy sëriñ bi léegi nag mbokk yi boo xoolee diirub fukki fan ak juróom yii ñu nekk ku yàlla defal ngay bàyyi xel actualité yi da nga gis ne ñi ngi jànkoonteeku naqar aw metit woo xam ne di recevoir ay baat kàddu yu ñaaw yoo xam ne lu ko gën a metti ak lu ko gën a ñaaw gisee fu ko te loo ci mën a dégg neexuta layal kenn mënu koo layal li gën a metti nag mooy ñu lay wax lu la metti te mënoo ko layal loolu yoonu murid da cee toll guddi yi ñu toll bu njëkk yenn adversaire lañ amoon muy ñi nga xam ne xay na dañoo di nga tasawuf waaye guddi yi ñu toll ñiñ bokkal tasawuf bii ñuy dund ñi ngi ñuy sànni ay kàddu di wax ci ñun di dugg ci sunuy mbóot di ci wax loo xam ne kenn mënu koo layal ak lu coow li bari bari kenn mënu koo layal te juddoowut ci lenn nag lu dul ñàkk a delloo si njàngaleem Sëriñ Tuubaa mi ci imaan islaam ihsaan te yam ca sëriñ bi boo dee xool lépp lu ñuy tudde ak may wala ak wilaayatu wala sañ-sañ xar xarbaax ci moom la dëppe ndax moom day wax ca xasida ak ik fi nii di wane may yi ko sunu borom may nga xam ne amulu ko frontière ci mulk ak malakut loolu nag du fu yomba àgg yaa malikal mulki li wasaata duna jawan fil mulki wal malakuti dahra yallaahu ànd ak li li muy am boobu sañ-sañ teewul mbir yëppam da koo teg ci àndaari sharia ci la koy natt lépp lu mu def wala mu wax ko dañu fekk mu dëppook alquran dëppook hadis yonente bi sallallahu alayhi wa ñun ñi ànd ak moom nag loolu ci lañu yoon woowu ci lañu teg nañu yoon wi ci laa jaar jaar leen ci bañ ko ba tënk ñu sax ci ñu jéemoo a roy mazhabu imam Malik lépp rek ngir bëgg ñu tënku ci loo xam ne xam na ni yoon wi ñu nekk di yoonu tasawuf yoon wu kekke la te bari na góor yàlla yu ci taraxiise ñii dañ caa doxe alku yàqule sunu borom sël bu leen ñii dañ caa doxe ulama u sharia yi roy leen sëriñ bi nag doon ñu musal ci xeet yooyu li ñu tudde as satahaatu suufiya muy yi nga xam ne nit sax day àgg ci ay leer daf koy gàll ba la muy wax du ko tey wala la muy def sëriñ bi dafa ñu doon wattandikuloo yooyu tax mu duñu tënk ci loo xam ne buñ ca tënkoo kenn duñu jam te liñ bëgg ci moom danañ ko am léegi nag jamono yu mujj yi gis ngeen ni mbir yi jéggi na dayoo mbir yi doy na waar te am na boroom xam-xam bu ma dégg mu wax lu am solo nee na mi ngi juddoo rek ci li ñuy tuddee bay bayal wala dañuy wax ne arab yi dañuy wax ne al wiqaayatu xayru min al ilaaj dangay ngay sa bopp ba dara du agsi moo gën nga bàyyi ba yëf yi agsi nga ne nga jug di faju melow ki bokk ci Serigne Touba nañ yëg ne képp koo xam ne ci say wax wala sa jëf tax nañ ñuy wax ci sëriñ bi lu waxuwut wala ñuy def ci sëriñ bi lu defuwut yow mënuñoo gëm ne meloo ko bokk ci Serigne Touba nga ame ndax jëmmam jaag doomam yaag ñam yaroon amu ci kenn kuñ mën a jam ci wax wala ñu mën laa jam ci ay jëf. waaye nag ñun gone yii nga xam ne dañoo bokk ci ñi mujj ñëw jotuñoo jëfe ndigalul sëriñ bi ci sàkku ci xam-xam jotuñoo taseeg sayxul mu rabbi bu ñu defal riyaada tarbiya sunu ruux amuñu ndimbal xamuñ liggéey bi sëriñ Tuubaa liggéey loolu eggale nañu ci ñuy wax jamono bu nekk ak di def loo xam ne ñaawaay bi ci lislaam jéggi na dayoo li may junj nag junj ko doy na ci ndax ñu bari xam nañ ko ñëpp ko naqarlu ñëpp ko mettitlu waaye li ma bëgg a wax rek mooy ngeen yëg ni man gis naa sax nag ay jàmbaar yu bari ñu ngi ci ñu ngi ciy wax di ci dox ba mu jur ab xuloo suñ digganteeg suñ mbokki jullit yi te loolu du barabu xuloo ñun nekkuñ ci barabu xuloo dañoo toll ci palaasu war a yar sunu njaboot jàngalal leen Serigne Touba bañ xam ku ci bokk nan la war a mel foofu lañ toll ndax bu fekkente ne nit dafa xotti wor may yàlla wax ci moom loo xam ne bu ko waxoon ci foo xam ne daw dawla islaamiya la l'islam dagg boppam ñu war koo rendi wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne kasalika waaye yow mi jaboote kookee loo mën a dégg bés ko yar ki nga jaboote ci kanam adduna bépp fam taxawoon wax nga taxawal ko fa ñëpp teg la bët mu weddi la mu waxoon nga yar ko ba ñëpp xam ne yar nga ko mu lànk mënoo koo yar nga wane ne bokkul ci yow su ëllëgee nag ku la attaqué nga seet nooy défendre sa bopp waaye dañoo dañ koo def ab xuloo ñu ngi xuloo gaañi te ca dëgg-dëgg tolluñ ci jamonoy xuloo ci jamono yi defaru ak yar ci lañ toll yooyu nag yuy raam la di ñëw ndax tawxiid lañ jàngalewut léegi daare alxuraan yi sax foo ci dem bu ñu dee jàngale aqida wala tawxiid dañuy wax ne ñooñu bokkuñ ci ñun nga xam ne aqida moom day mel ne dañ ko ragal buy pas-pas te loolu la Sëriñ Tuubaa ne nañ ko tàmbulee léegi nag bu ñu demee ba ragal pas-pas buy tawhid suñu diggante ak suñu borom lañ ca war a xam duñ ko ca xam dañuy wax mbir wooyefal ko te fekk loolu du lu waxu du lu ñu war a wax suñu diggante ak suñu borom wala ñu def dara wooyefal ko te fekk loolu du lu ñu war a wooyefal ndax moo ne kii nga xam ne moo indi moo explosé yëf yi am na yeneen wax yu ko jiitu woon yu garaawee noonu waaye kenn waxu ci ñu bàyyi ko noonu muy jàll ci internet bi barki démb rek wallahi alazim barki démb. benn jàngalekat bu jigéen bu nekk ci Louga moo ma woo téléphone nga xam ne gëj naa koo dégg diirum ñaari at mu ne ma yow dégg nga wax jooju yi ñuy wax ci internet bi ma ne ko waaw nu mu demee ma daal ma koy nettali fekk dégg naa ko ma ne ko loolu de waxi dof la rek ak gone gu jàngul xamul dara mu ne waaye nit ñi xamewuñ ko noonu ndax man damaa dëkk ak ñu dul ay murit te bis bu yàlla sàkk dañ may xas may rus ñu naan yéen murit yi nangam yéen murid yi gëmu leen yàlla ma ne ko waaw loolu moom da ngay muñ rek te xam ne dañoo toll ci jamono yu muñ ñun dañoo toll ci jamono yu muñ dëgg la ku ne xam na ne Serigne Touba li mu woote leer na te ki koy mbubboo ba noppi di wax ak a def lu bokkut ak loola wërta tax ñu àtte ci yoonu murid ndax jullit bi nga xam ne dañ ko séen ci lu neexut yàlla kooku duñu àtte lislaam ci jëmmi kooku dañuy jàpp ne lislaam dafa beru ñi nga xam ne dañoo askanu ci moom beru lislaam nag lu mat la ki ci nekk buñ gisee ci moom ak matadi buñ tuumaal lislaam waaye nañ ko tuumaal moom jëmmi boppam joojee loolu nag ñëpp a ko xam waaye ndeem ñun dañoo weexu donc nekk ci loo xam ne bari na ay noon yu taxaw jàkkaarlook ñun te danga gis koo xam ne day jël posé boobu exploité ko bind ci wala mu wax ci loo xam ne moom wóor na ko ni lii ngóor si wax du gëm-gëmu yoonu murit te du aw doxiinam waaye mën na cee sukkandiku nag bind wala mu wax loo xam ne mën na cee yàq lu bare bare bare bare bare la lay gàccaal nag mooy ki nga yaakaar amoo lu dul moom nga dégg ñuy wax ci moom loo xam ne wóor na la ne nit a wax lu rëy ba tax ñoo ñooñu jug di wax ndax alxuraan sax sunu borom dane wala tasubbu alladina yad'una min duni llah fa yasubbu llaha adwan bi gayri ilm même kii jaamu lu dul yàlla sax boo ko sikkalalee yàllaam mën naa saaga sa yàlla ji jàmm loolu moo waral nit ñi di ñu attaqué ci yu bari loolu nag faw ñu dellu si waat njàngaleem tawxiid loolu nag ñii ñu tudde bis bi tey muy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne ak njabootam ñoo woote ak Serigne Mahmoudan Xarilo mi nga xam ne moom lañ ko tuddee kenn ku nekk buñ jëloon jëmmam mën nañ ko def namuusa ci loolu wane imaanam wane islaamam wane ihsaanam boo ko defee ñoo xam ne ku bokk ci Serigne Touba kan nii rek la war a mel daa war a doon jullit boo xam ne doomu aadama yépp dañ koy wóolu ci deret seen deret wóolu ko ci seen alal muy bi jiitu ci moom man aminahu nnaasu ala dimaihim wa amwalihim doon jullit boo xam ne doomu aadama yépp dañuy mucc ci aw làmmiñam mucc ci ay loxoom man salimal al muslimuna min yadihi wa lisanihi doon muhsin boo xam ne digganteem ak boroomam jamono bu nekk na muy sellale ak rafetal day mel ne ku jàkkaarloog yàlla ba nga xam ne bu suñu boroom téyewoon ci loxoom it du mën a soppi dara ca sellalam googe dutu ca mën a yokk dara ku bokk ci Serigne Touba jamono bu nekk noonu la war a mel waaye koo xam ne sa imaan des na sa islaam des na sa ihsaan des na nga xam ne ci say wax ak say jëf duñ ci déggee yooyu bu fekkee ci nga bokkit bokkoo ci ñiy raggal sëriñ bi ab deram bokkoo ci ñi koy sàmmal aw yoonam bokkoo ci ñi xam war wormaam bokkoo ci ñi xam am njàngaleem bokkoo ci ñi ko jox àqam bokkoo ci ñi ko respecté loolu yi lenn la ci yi nga xam ne mu ngi ñu indil gàllankoor waaye yëmut ci loolu soo xoolee li ñu tuddi almuridiya jamono jii ñu toll madrasa yi ci nekk madaris yi ne ci biir muy école yi ne ci biir ndax ay leader la am ay kilifa yoo xam ne maanaam bu ma ne kilifa nag maa ngi ci jublu ay wootekat yoo xam ne dañoo wuute te bari nga xam ne war nañoo mat junni te koo ci dem principe yam am bokkut ak ya ka ca des am te jàpp na ni lam nekkee képp képp képp mooy melokaanu ku nekk ci Serigne Touba koo ci dem lam tëral jaarale ci aw nitam jàpp na ni loola rek mooy al mooy mooy ya te ñoom bokkuñ ay gëm-gëm léegi nag junniy dëkk naka la mën a nekk. te sëriñ bi woote woon genn dëgg ñu ñëw bëgg koo séddale junniy dëgg junniy dëgg te melokaan yi day leer jëf yi di leer wax yi di leer yooyu nag bokk yi li ma waxoon bërki démb ci bi ñuy waxtaane fii Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ma ne leen daa am jëmm yoo xam ne neexuñoo waxtaane daa am jëmm yoo xam ne neexuñoo waxtaane li ma ci jublu nag mooy wax moo jafe te dëgg it fu mu jógee dana am ñoom dal ci seen kaw te ku dégg sa wax arrangé wu ko dana ko dëkkale feneen wala mu moomale ko keneen moo tax sëriñ Abdul Baaxe ma ma ca Bushra moom sëriñ Xaas yàlla na ko yàlla sàmm damay dégg mu naan soo dee waxtaan de boo nee Mbàkke boo ne Tuubaa ak a neex ñu ne Mbàkke Bawol ngay léebu te fekk neexaayu Tuubaa rek nga jubloo wax buñ la laajoon ci mbakke it nga wax neexaayu mbàkke naka noonu it jamono ji ñu toll tomb bii ñuy waxlu muy ko bokk ci Serigne Touba nan la war a mel ci dëgg-dëgg boo ci waxee la nga ci war a wax lépp fawu ñu wut ñuñ moomale wax ji ne ñoom ngay lépp waaye ci gàttal daal iman islaam ak ihsaan moom la Serigne Touba woote ci am mbindam nag ci mu njàngaleem wane ni ci la tabax yoonu murid ci la ko tabax sax far la wax ussu tariqati al imaanu bi tawhid wal islaamu bil fiq wal ihsaanu bi tasawuf doog a wax ne nag na ko kenn ku nekk def muy say jéego bad ul abdi bi tawhidi wal fiqi an tasawufin majidi muntahijan masaba ahli sunna ndax tomb la boo xam ne melokaan yu sell yi ci nekk yu yu yu am solo yi ci nekk ñi ko melowoo bari nañ ñi ko melowoo bari nañ waaye dafa am boroom xam-xam bu ne wax ju am solo mu ne aw askan day boo ca seppee kenn ne kii fi mu bokk moo fi gën ña bokk ci askan wa te seen xel gàtt dañuy am lu leen naqari waaye boo ko bëggee tagg boo nee diw de kenn gënu ko loolu doy na sëkk aw tagg waaye nag ci doxin nga xam ne man bu ma doon joxe misaal bari na lool du jeex waaye li ma gën a jege daal bu ma doon joxe misaal ci ñu bëgg a xam ñu bëgg a xam dëgg-dëgg ku bokk ci sëriñ Touba nan la war a mel ci wàllu ruux ci wàllu pas-pas ci wàllu iraada ma waran cee joxe benn jëmm joo xam ne dañ koy gis ñëpp nangu ci damay tànn ku mel ne Serigne Abdourahmane Mbacké ci Darou Moukhty moo ngi indee teg ko wane ne kii kët man li ma jàng ci téere yi Serigne Touba wax ni nii la bëggee. lépp gis naa ni appliqué wu ci jëmmam ginnaaw ba mu bokkee ak moom ci wàllu nasab ci wàllu askan ci wàllu ruux dafa bokk ak moom ci lépp tekkiwul ne nag moom rek a ni mel ñi baax bari nañ damaa joxe misaal ci kenn kooku mënees na ci indi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mboor moom yi nag ndax fi ma ko tegit mooy mooy dafa jiital la war a jiitu teg ca la ca war a tege teg ca la ca war a tege muy jàng ba xam di jëfe lam xam di jàngale di jaamu yàlla di liggéey di yare di tarbiya sëriñ bi mag ñi àndoon ak moom bari na ci ñoo xam ne bu dee ci wàllu askan santuñ woon Mbàkke waaye ba mu noppee ci ñoom la doon liggéey moom mission ba mu yoroon ñoom moom lañ yor ci ay barab sëñ daam Abdourahmane Lo ku ne xam na ni la sëriñ bi yoroon la yor di ko wéel ñeneen ñu bari ñu mel ne moom ci loolu lañ nekkoon kon guddi yi ñu toll nag mbokk yi bari na luy nuru lu bokk ci liggéey bi te bokk ci sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu anhu daf daan wax ne yoon wi day bari na lu ci nekk loo xam ne bu boroom dellu si waatoon tey dina ko génn ndax bokku ci bari na lool luñ ci boole bari na lool luñ ci boole bari na it luñ ci génne dafa bari luñ ci génn te tam bokkoon ci bari luñ ci boole te bokku ci yooyu nag ku ci bëgg mucc wala nga bëgg leen a ràññee faw dangay ngay delluwaat ci benn référence muy njàngaleem Serigne Touba ndax lim soxla ci ñun lépp fi mu bëgg ñu aw fa ni mu bëgg ñu mel ko lépp def na ko ci téere yi mu leer naññi nga xam ne kon luñ mën a jàpp lu bokkut ak lim jàngale loolu kon nañ koo jàpp ci suñ coobaree bakkan te ñu dañoo toll ci guddi yoo xam ne dañu favoriser lu ko matut ginnaawal lu ko mat li feeg ñi ngi jafandu ci nettali yi ak xarbaax yi ak yi nga xam ne ay wax la yuy bégal ki koy dégg day tax nit ki du farlu te day tayel te léeg-léeg nga dégg loo xam ne lu mu am am solo sëriñ bi da koy aj ci jëf ju màgg wala ci pas-pas bu màgg wala ci coono bu méttee méttee métti ndax moom li mu am ginnaaw bi mu doonee ndigalul yàlla ginnaaw bi mu doonee coobare yàlla ak ndimbalam li ñu tudd al inaaya ar rabbaniya da ngay fekk muy wax ne maa ngi leen di yee nag ba ngeen xam ne lii ma am bu leen ko jàppee rek mayug yàlla kon su boobaa day yomb de waaye coono bu metti laa daj doo ko am ngërëmul yàlla lu sax dakk yàlla defal mi lii mu ma defal nabbahtukum ala kaddin bada lii xabla an araridan mu ab abada njëkk may am ngërëmul yàlla lu sax dàkk coono bu nekk daj naa ko coono boobee nag ma nga tàmbalee ca Mbàkke Bari jóge fa dem Ndar jóge fa dem ci tukki bi déerub lim nekk ak ñoom lépp waxtu wuñ xëyee seen yitte mooy tàqale ruuxam ak yaramam luñ xam ci metti danañ ko ko teg lu ñu xam ci lu ko mën a gàllankoor ci digganteem ak boromam danañ ko ko teg moom nag yitteem mu def saa bu xëyee lu koy gën a jegeele ak boroomam ak luy tax mu gën a sax ci ndigalul yàlla noonu ñu jëmee seen yitte ci moom mu jëmee yitteem ci yàlla noonu la ko yàlla gàttandule boppam jox ko ndam la mu bëggoon lépp mu am ko mu am ngërëmul yàlla lu mat sëkk donte nag ànd naa ko coono ñun nag buñ bëggee cëru ci moom wala ñu am ci moom dara te duñ mos boobee. wala ñu bëgg koo jàppee liggéey bu ñu liggéey ba yàq ko rek moo ci des ngir war koo xéewloo loolu su booba day yomb lool may wax ne sun mbokk yi nga xam ne léeg-léeg dañuy mel melokaan woo xam ne wuute nag melokaanu Serigne Touba nga gis ku rakkaaju bëgg koo bëgg koo bëgg koo moomale wala bëgg koo tudde xar baax wala bëgg koo tudde ak wilaaya wala bëgg koo tudde sañ-sañ ma ne yooyu sañ-sañ jëmu ci xar baax jëmu ci wilaayatu jëmu ci ndax lu ñu am ci yooyu ñun lu ci waay am mi ngi ko jëlee ci sëriñ bi te la ko ci sëriñ bi defal mi ngi mel ne puso bu ñu sëpp ci biir géej lam ciy génne na mu néewee noonu la néewee lam am noonu la néewee ca lam jëlee ci sëriñ bi te sëriñ bi dafa feesoon dell ak yooyu waaye déggal li sëñ mu Ka wax ci moom déggal li mu wax ci moom dëggug Bàmba ak diineem ja bi jaww ba yóbbu li na ci moom ci dëggu ak diine mën su nuumati yi bi mu feeñee jamono rek lal ànd ak moom ba bi mu tànnee dëkkaaleeg boromam mu dem ba sunu borom tàggatal ko jamono lépp mu teg ko ci loxoom mu ne zimaamul wara asri ladallahi fi yadi nosu mbindeef yépp sunu borom teg na ko ci sama loxo suñ Musaa Ka déggal la mu waxaat ci moom te diineem ji ak maandoom ga am am ba yàqu ko te diineem ji ak maandoom nga am am ba yàqu ko sunu borom teg lépp ci loxoom defal ko sañ-sañ ubbil ko magasin yépp mu sañ a soppandi ci mbir yi nam ko soobee waaye ba mu demee ba toll foofee it déggal li sañ Moussa Ka waxaat ci moom te xam-xam ba ak sellal ga sañ-sañ ba yàqu ko kon ku sañ-sañ bëgg a yàq sa xam-xam wala mu bëgg yàq sa sellal wala am am bëgg yàq sa diine wala mu bëgg yàq sa maandu na nga yëg ne nuruwoo Sëriñ Tuubaa te royoo ko te jéemoo ko roy moo ëpple woon yooyu ñépp te teewul dëggu ak maandu ak am diine ci moom la dëppe kon bokk yi nañ yëg ne ku mel ne Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne moom lañuy ñuy wooteel liñ gisoon ci moom ci imaan bu ñu ne imaan mooy gëm yàlla bu ñu ne liñ gisoon ci moom ci imaan nag dañ koy delloo ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga yonente bi moom la yàlla yónni ci ñun ne lépp lu mu wax dëgg la wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonente bi lam ñu jàngaloon ci imaan dafa wax ne jëpp jëmm joo xam ne gis ngeen ko muy baagante diggante jàkka jàkk këram mu koy baagante da ngeen seere ni mu'min la ku am ak gëm yàlla la isaa raaytumu rajula yaxtaaju lmasjida fashhadu lahu bil iman Cheikh Mouhamed Lamine Baara nag ku ne xam na digganteem ak jumaay Sëñ Tuubaa ji kon mu'min la muy benn bu imaan jàllee la ci toppaat mooy muslim loolu it lu xam ci moom la li xam ci moom ci muslim bu ñu ci sukkandikoo mooy arkaanul islaam yi ñu xam nga xam ne bu neel islaamu ala xamsin shahadati an la ilaha illa allah wa iqaami salaa wa itai zaka wa hajju baytillahi liman a ila sabilan ak sawmu ramadan yooyu lenn lu ci nekk def na ci lu ci kenn deful koo xam ne bu ñu xoolee ci wàllu aj li ko ñëpp seereel lu ko lu mat ñëpp lépp mu di ko def ci coobareem ci wërsëgu boppam ci ak bëggam kooku cofeel gi Serigne Touba di wax ci digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa ba doon jooy jooyakal ci biirum njàngam xal bii lahu fi itaabil jismi ba àgg ca nam bëgge woon a siyaare ji yonente bi sallallahu alayhi moom loolu dund na ko ci xolam ci digganteem ak yonente bi ihsaan bi nag moo gën a fés loolu moom laa doon junj ci ne neexut a waxtaane ndax ak rafetalam dafa jéggi woon dayoo ak rafetalam dafa jéggi woon xiyaas te mi ngi ko doon jëmee ci li ñu tuddee al bashariya maanaam mbindeefi yàlla yi jëmewu ko ci doomu aadama waaye ci mbindeef rek la ko jëmewoon kon ñett yooyu bokk yi bu ñu bëggee xam ki mel ki bokk ci Serigne Touba melaw wi mu war a am nañ yëg ne ab jullit lay doon boo xam ne day gëm yàlla ngëm gu mat sëkk day doon ku wommatu ci ndigali yàlla yi di bàyyi ay tereem waaye day doon koo xam ne it day fóot ab xolam di rafetal digganteem ak boroomam di rafetal digganteem ak nit ñi waaye di rafetal digganteem ak boppam weneen melo wuñ gis nag wala weneen melo wu am wala jeneen wax ju am nañ ko bàyyee ka moom nañ ko bàyyee ka ko melawoo nañ ko bàyyee ka ko jëf te ñun ñi bëgg mel melokaanu ku bokk ci Serigne Touba ñu delluwaat ci téereem bi ñu tuddee Masaalikul Jinaan delluwaat ci téereem bi mu tuddee Huqqal Bukaaw delluwaat ci téereem bi mu tuddee Matlabu Shifaa'i delluwaat ci téereem bi mu tuddee Matlabul Fawsayni gis nga ñeenti xasida yi buñ ko jëlee danañ ci fekk melokaan yi nga xam ne moom la Serigne Touba bëgg. képp ko bokk ci moom nga melowoo ko te ku ko melowoo da nga nekk ab jullit da nga nekk ab murit saadix te waxtu woo doonee murit saadix sëriñ bi nee woon nag kooku ëllëg fu ma nekk dana ma fa fekk lu ma am dana ko bokk ak moom kon ñooñee yàlla nañu sama borom boole ci ñoom xam naa waxtu wi xaw naa xaw nañoo dab te tomb bi ñu jël góor góorgóorlu nañ ci ci ak moytu ngir bu leeree am ñu moomale seen bopp wax ji te liñ jublu mooy islaax rek ndax Sëriñ Tuuba ka mujaddid li diin wa muslih lil umma ci loolu lañ doon waxtaan ni mu doon yeesale diine ak ni mu doon defaraate xeer wi islaax boobu nasiixa boobu ci lañ jublu woon a waxtaan moo tax ñu indi ko ci jaanib ilmi yi tënk lépp ci am mbindam di ñaan nag sunu borom subhaanahu wa mu boole ci ñoo ñooñu waaye kàddu yii nag mu gudd mu gàtt ñi ngi ñaan sunu borom defal ñu ci ak dégg ak topp boole ci kàddu yi nga xam ne mën naa jëriñ wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Seexuna waxtaan wi am na solo lool yaakaar naa liñ doon ñaan suñu borom mu defal ñu ko ñu dégg ko ci am nañ ko ci duñ ci mën a yokk dara ndax al takk fii lil aqli ndax li nga li nga wax tënk na lépp ci melo yi nga xam ne moom la ab bi war a am rawatina ku aju ci Sëriñ Tuubaa ngir waxtu wi rek xam naa mbokk yi ñu koy xawoon rek dañuy fesee ni ñu wone image bi nga xam ne moom lañ waajaloon ngir gaaral ko nit ñi ngir ñu fàttalikuwaat Cheikh Mouhamadou Lamine kon ñu ngi ñaan ñëpp teelu bokk seetaan EMS bi nga xam te ne mbokk fas yéene tuuti ci lu bari muy as waxtaan su gàtt asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba ndigal li bàyyikoo ci xalif général kullu murit sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér moo sabab ñu taxawal kuréel gi nga xam ne moo di Touba ca kanam di kuréel goo xam ne nii dafa yittewoo lépp lu jëm ci loo xamante ne bi soxal na wàllu développement ci dëkk bu sell bi di Touba ni ko sëriñ Touba Cheikhul Xadim ñaane woon ci xasidaam gi di Matlabul Fawzeyni ba tax na lépp loo xamante ni bii ay jumtuwaay la yu doomu aadama di soxlawoo ci ak dundam rawatina dëkk bu sell bi di Touba ñu fas yéene taxaw. mu jëm ci wàllu wér-gi-yaram jëm ci wàllu jàng ak jàngale jëm ci wàllu ndox mu sell mu ñu jëfandikoo jëm ci lépp loo xamante ni bii ay yoon la wala lépp loo xamante ni bii ci gàttal doomu aadama dana ko soxlawoo ci dëkk bu sell bi di Touba loolu nag tax na. li ëpp ci kilifa yi nga xam ne ñi ngi ci yoonu murit rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba yëkkati ci ay kàddu di ko rafetlu ñuy sàkku ci limu lu mu néew néew ñaari million ci ay murit weer wu dee ñu barkeeloo ñaar téeméeri dërëm. loolu nag bu ñu ko xaymaa weer wu nekk war naa toll ci ñaari milliards ci koppari CFA waaye bu ñu ko xaymaa at mi war naa toll ci ñaar fukki milliards ak ñeent. gannaaw bi ñu ko taxawalee nag. dee leen wax lu ngeen xam dee leen wax lu rafet bu ngeen gisee lu ñaaw ci nit bu leen ko wanee na ngeen ca def ngor te xam ne ngor mooy tax a gore nit ku nekk la ko yàlla jox ci métier su bëggee mu barkeel da boole ak ragal yàlla ak lu ak ku mën a doon rek da boole ak ragal yàlla. te xam ne lii muy wax lii muy wax mën naa nekk njëriñ waaye wax joo xam ne ji da ngay wax lu la neex rek wala nga dégg rek ëpp naa def ci ab journal fexe leen ba yéen lu ngeen bind bëgg nit ñi dégg ko nay lu wér te te kilifa yi képp koo xam ne kii. képp koo xam ne kii. bind na leen. bind wax leen ci boppam dara. wax leen ngeen wéy ci. ngeen ci. moom mii la koy tàmbalee. man daal. mu ne moom daal. li mu bëgg. bu bu ko kenn tuddati ci lenn. ci lul ak jub. bu ak jub weesoo. leneen la ca togit. du ma ko diis tubaab bi. dina ko diis sëñ Fallou. te dana ko ko fajal. nee mu bëgg ngeen seet li ngeen di seet. li ngeen di wax muy lu leer lu rafet loolu mooy li am solo waaye lu la neex wax rek bëgg sa journal jar mën naa bañ a am kilifa yëpp nag muy moom mi ak ñi def ñëpp lay waxal génnewu ci kenn génnewu génnewu benn tarixa tarixa yëpp ci yem ku fi yàlla def kilifa na ngeen ko warmaal suturaal ko da wax wax joo di wax wax joo xam ne ji dëppee wut moom ngeen bañ koo wax da leen wax lu ngeen xam da leen wax lu rafet te bañ a wax loo xam ne lii bëgg lu neex rek a tax bu ngeen ko defee lu ngeen yëngatu yàlla na jëli yàlla na barke te ngeen am ko ngeen ko bëggee loolu moom la leen di dénk rek nee moom ci jëriñ boppam na ak yoonu Serigne Touba Serigne Touba boppam. ak lu bokk ci moom. lu bokk ci moom. bu ci kenn tudd lenn. ku ci bëgg a lenn. ku ci a ci moom nii. wax ci ak moom. waaye bu kenn wax ci dara. lu bokk ci Serigne bi. lu bokk ci Serigne bi. te joxewu te moom mi joxewu ci ndigal. yëgu ko it yëgu ko it. ku mën a bind wax leen. ku mën a ku ci bëgg a xam lu wér. da ngay dikk ba ci moom. laaj ko mu wax la bind. jox la waaye fu mu bind jógee rek. waaye tontu. nga daal di koy tontu. def ca la la neex. nee loolu nanguwu ko. yoon wi moom. am na borom am na ci boppam. lu yëlluwut ak lu yëlluwut ak moom. kenn waru ko wax. rawatina Touba gii nag. loolu lañ doon dénk. te lu ma a dénku la. ay ndax nit ci boppam. bu bëggee baax. day a tooñ. baña a jëw. bañ a wax lu mu xamul. tooñ nag kuy tooñ nag ndax tooñ ngi fi rek mais faj tooñ ngi fi rek ndax tooñu biir ndax tooñu biir bi tée ngi fi bi tée ngi fi ndax suñ falilu ndax suñ falilu ku ne xam na ko képp ku laal ci moom te képp ku laal ci moom loo xam ne lii du noonu loo xam ne lii du noonu dana ko faj moom dana ko faj moom ci boppam ci baatin loolu nag bu sañoon lool duñ ci fekk ñun ñëpp na ñuy maandu waaye Serigne Touba moom bu ko kenn tuddati ci loo xam ne lii joxu la ca ndigal waxu ca yow dara ku mën a bind jox la mën a bind jox bu leen ci wéy laaj leen ko bu bind jox leen signature am kenn mënu ko imiter kon nag loolu la leen doon bëgg a wax seen diggante ak nguur gi nag Serigne bi nee na li li ci nekk lépp yëg na ko waaye la ko sabab. mooy kaddu yii mu leen njëkk a wax bu ngeen jiitalee lii mu leen wax du ngeen am ay jafe-jafe ak seen digganteel nguur gi ndax kat lii mu wax ci kilifa yi moo ne ci président Abdoulaye Wade kilifa la yàlla jox na ko cër sàng leen ko sutura defut sax dañ koy sànge sutura waaye bu ngeen xawee sutura réew mi ci doomi réew mi ngeen bokk kon nag la ngeen war a wax da ngeen seet di ko sàmm du lu du lu waay wax ko du lu waay xam nettali ko kon nag li sëriñ bi wax rek moo ëmb kaddu yëpp tàmbale ko ci boppam bii ba ci tere